ma bokk jëlal xel di xelu bañ ciy xelu ba mu lay dikkee xëtandi waaye boo jëlee Dakar net muy information bu gën a faar ñu jox la ko. di ami cheikh internet bu Dakar net dal leen ak jàmm ci seen rendez bi nga xamante ni mooy Top Actu di actualité yi gën a faar rawatina nag yi gën a fës ci semaine bi. dañ leen koy faram-fàccee fi nga xamante ni mooy ci Dakar Net ñu ngi nekk fii ci Ouest Foire li gën a baax saa su nekk mooy yéen ñiy toog dañuy suivre tax nag ñu nit ñuy xool lépp lu baax ñu ngi koy waxtaan ak yéen ngeen ci ànd ak votre serviteur Davida ni ngeen ko xamee saa su nekk rek lépp lu jug rek te muy actualité noonu lay demee kon dañ koy doole sans plus tarder li nga xamante ni moom mooy recours bi waa député opposition bi daal di yëkkati woon. jébbal ko ña nekk foofu ca conseil constitutionnel bi teg ñu gis ni euh, jamono ji dañ leen ko gàntal euh, li koy indi nag bokk na ci mbirum Adji Sarr ak Sonko ginnaaw bi nga xamante ni daal dinañ ko yëkkati lii di mbaraay kiraayam bi nga xamante ni moo taxoon mu wuyu ji bi ñu demee nag ba wuyu ji moom Ousmane Sonko jamono ji nga xamante ni nag moom la député yi xool daal di ne nañu ko amalee dañu ko param patamee ba dindi li nga xamante ni mooy immunité parlementaire am taxoon ñoom it daal di mànkoo def ab recours ngir dindi ko waaye jamono ji ñuy wax ak ñi nga xamante ni moo di député opposition bi dafa mel ni mbir moom dañu ca lajji ndax dañ leen ko lànkal motif bi nag bi ñu ko laajee ñi nga xamante ni ñoom ñooy juróom-ñaari sages yooyu ca conseil constitutionnel bi la ñu xamal mooy du seen compétence moo taxit ñu daal leen koy gàntal ñu jëlaat beneen actualité bi nga xamante ni ci président Macky Sall la ndax gis nañ ndakaar ak oto yi ni mu ci bare ñenn ñi sax dem bay wax naan ñi ci nguur gi. wala sax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci pouvoir bi oto yi ñuy faral di yor dafa bari ñenn ñi sax dem bay gis ni sax la muy jar oto yooyu lu bari la tax kii di président Macky nag daal di ci fas yéene jël nag ay mesures yu safa saf yenn yi ci nga xamante ni moo di véhicule fonction yi Macky Sall da ci jël nag ay mesures nee na désormais képp koo xamante ni rek bokk nga ci gouvernement bi moo xam ministre rek député li nga xamante ni moom nga war a am léegi ci ab oto muy doon benn oto lay doon waaye tamit yemu ca ndaxte nee na weesoo ministre yi rek ñoom ñoo am droit amaat beneen oto boo xamante ni oto service la waaye leneen lu mu ci tegaat bokk na ni oto bu ci nekk da koy dawal carburant bu ñuy am dina toll ci 500 litres waaye 500 litres yooyu fukki litres rek nga mën a utiliser bés bu nekk Macky Sall yem fa xamalaat na ni it ba tey maanaam oto yooyu nga xamante ni moom mooy véhicule. fonction yi mën ngeen nar a demee mais chauffeur ba koy dawal day bokk ci administration bi ndaxte oto yi dinañ leen di contrôler ba du ñu leen di génn di dem fu la neex wala ñuy def naka la ñuy def ci wàllum bu liggéey jotee ñu tambaal mbaaloog yooyu yëpp président Macky Sall mesure yooyu la ci gën a teg waaye tamit xamal na ni sax oto yooyu di daw. ka nga xamante ni mooy chauffeur bi dina am la koy permettre muy génn muy carnet de bord wala sax ab laissez-passer li mu mel na président Macky Sall daal di sukkandiku nee na ku wàccu ci yoon bi dinañ la teg ay daan yeneen daan la ñu gis ci diwaanu Pikine bi yoon nag ab policier la bu loxoom damm na mu amee film ba lañ leen di rendil ndaxte ab bataille la bu dox ci diggante ay agresseur ak ñi nga xamante ne moo di policier yi ki nga xamante ni nag moo jiite gang boobu turam di Akon moom Akon nag dañu ko fekk ci biir otoom. mu yor ab paakaam la ca gën a doy waat nag mooy policier bi nga xamante ni eh, ñoom ñoo doon def seen opération boobu naka la ñu attaqué oto bi benn ci policier yi daal di songu baar bi ngir bañoon intention bi nga xamante ne Akon amoon na ko mooy wax chauffeur am na foncé jëm ci kaw policier yooyu ci kawit loolu policier bi jëloon loxoom dugal ko ci baar bi bu ko fay oto bi dañu ko mujj diri Akon diri ko oto bi. moom nag Akon bi du kuy way kii Akon la boo xamante ni moom mooy chef de gang bi maanaam mooy cerveau bi li nga xamante ni la Akon def bokk na ci diri ko diri ko ba mu toll ci ay mett mètre waaye tamit yaramu policier bi yépp tëccu ami blessure mu daal di fay jaar loxo ba damm beneen côté ba nag ñu ngi fa fekk gis fa ñi nga xamante ñooy agresseurs yi ak policiers yi ñu laalante laalante bu metti ba sax ñu mujj a teg loxo ci ñaar ci ñuy def yu bon yooyu waaye tamit leneen li nga xamante ni gis nañ ko mooy policier bi nga xamante loxoom da caa damm bi mu daanoo armam daf ko fa bàyyi ki nga xamante ni mooy chef de gang bi di cerveau bi di Akon daal di profité xëcc li ni kat moom moo di pistolet bi jiitu leen ci ba daal di daw moom jamono ji nag ñu ngi koy wër fu nekk beneen la ñuy bàyyi wëri ko mooy li nga xamante ni ñëpp xam nañ ko te mu nekk foofu sa gaje ga puis bi nga xamante ni muy teen boobu doon tàkk. te amoon sax ñu ci jotoon a loru bi ñu xoolee ni kat lii mi ngi ëpp loxo ñu ne nag faaw ñu xool ñi nga xamante ni c'est des experts tax président Macky Sall ak gouvernement am muy état du Sénégal daal di déployer ay moyens. song ñi nga xamante ni moom mooy benn société américaine yi nga xamante ni seen xel màcc na jëm ci wàllum fay moomu waaye lañ si gis jamono ji mooy budget bi ñu jël mu toll ci un mille un milliard yi nga xamante ni dañ leen ko joxoon ngir kat ñu fay taal ba te taal bi gën di continuer tàkk li mu mel tax na ki nga xamante ni moo di coordonnateur forum civil bi di Birane Seck daal di interpeller état bu Sénégal ne kat lu toll ci koppoor yi ana nan lañ koy mën a jëlee signé protocole boobu ak ñi nga xam te mooy société américaine boobu ñu doon xaar ay résultats si ñoom te ñu gis ni jamono yi dañoo laaj yi bokk na ci leneen li nga xamante ni moom Birahim Seck ba tey daf koy bëgg a laaj mooy xaalis bi yëpp ana fan la jaar lan lañ doon xaar ci société américaine boobu ci yenn résultat wala sax dafa amat yeneen offre yoo xamante ni dañ ko teg ci taaw bi te ñun xamuñu ko di ay kàddu yi nga xamante ni Birahim Seck forum civil moom moo ko wax ngir lan ñu mën ko ci indil aussi li nga xamante ni mën na ay leeral indil ko aussi askan bi ba tey Ibrahima Seck daal di wax ni ñun seen Gadiaga la fa amoon ci ay teen yi fa doon tàkk bari na lool waaye tamit li nga xamante ni gis nañ ko fi muy fukki teen ak juróom-benn ci fukki teen ak juróom-benn yooyu nga xamante ne moo fa nekkoon juróom yi rek la ñuy gis ni jamono ji mooy baax loolu daal la jël lépp tënk ko teg ko ci ndoddalu état wu Sénégal ngir ñu indi ci ay leeral ñu jógee foofu wax li nga xamante ne lu doy yaram la waaye tamit doy waar jamono ji nga xamante ni ñu bari ñi ngi nekk ci négocier yi amoon ñu doom ñu gis beneen soxna soo xamante ni am na doom waaye cette fois-ci li mu def mooy jël doomam daal koy xoj ba mu dee. jël ko daal di koy dugal ci ab valise la fi maba amee nag moom lañ leen di wax soxna si F Ndiaye la tudd noonu lañ ko décrire moom soxna si dafa jógee ca dëkkam ñëw ci capitale Sénégal fii muy Ndakaaru am kenn ku mu fi dajal doon bëggante ak moom mu nekk ci sim seen mari yi bali ko ci dal dal ko ci bi mu demee wax ko ki nga xamante ni moo ko def kooku daal di koy rejeté F Ndiaye nag daal am xelu xalaatam ni kat ana fan lay waxee ëmb bi nga xamante ni ki fi nekk di doom joo xamante ni amul bàyyi xëy na nag pression yeeg lu ci nekk moo ko poussé ba mu def jéye yi moom F Ndiaye ca fa ma nekkoon ca kaw la doon toog foofu fa la doon amee doom waaye la nga xamante ni F Ndiaye la def mooy bi doom ji génnee rek daf ko jël daal di koy xoj ba mu dee mu daal di koy raxasee nag ak li nga xamante ni mooy ab tissu dugal ko ci valise bi wàcc nag xam naa doon raxasu daal di perte conscience foofu amatul connaissance bi faiblesse bi dikkal na ko fa la daanu fa la ñëpp ñëw daal di fekk valise bi bi ñu ko tëddee ci li ñu gis xale boobu mbokk yi lii ma gënoon a fës ci seen actualité top actu ngeen ci doon ànd ak votre serviteur Davida fi nag ak boobu ma leen jox dig daje ci beneen actualité. ma ci wér dama koy bàyyi moom système am. commencé noonu lay amee tous les samedi dañuy ànd ak suñu ay internet daal di def li nga xamante ni mooy xibaar xibaar jëm ci wàllu politique économique santé ba ci fee di weer ak kii bi nga xamante ni da leen yitteel yéen suñu ay internet yu Dakar rek donc rendez-vous prise le samedi. samedi boobu nag ci laay toog jàkkaarloo ak yéen may faral di wax naan géntal bukki gaynde bi si baa géntal lu du sob nag yóbbu fu muy kon nag hey samedi.